man ci waali bu doon damm samay baaraam di dagg sama koy di ko sandi sax man waali laa bëgg na ma ne la lii may def nii ku dul waali jëraloo ma ko wala yéen déggu leen ko waali laa la wax xam nga ma doon keneen na dem feneen ñu dóor ma toroxal ma euh, def ma lu ma metti damay dem saaga seen lëfal nday ñoom ñëpp wan leen ginnaaw ndax man kenn mënalu ma dara ku dul waali jëraloo moo ko man maanaam man aadama man maa bëgg waali loolu kenn mënu ci dara damm nan koog daa ay waay yàlla naa ñàkk jo ñàkk ñàkk jom yal naa yàgg a rus yal nan ma yàgg dugal kuur ndax waali yal nan ma yàgg a ndax waali yal nan ma rey ndax waali yal na sama bakkan bii des ci staafu waali ci waali laay dee maanaam man duma ma bàyyi waali man waali bu ma beddi woon sànni ma sax toroxal ma sax ne waaye aadama nan go aadama nangam aadama teewul duma ma bàyyi waali déggoo nii laa koy def nii man maa bëgg waali ci boppam ci waali laa amul sago waali ci boppam laa amul sago waali moom laa amul sago man sama lépp maanaam yéen dama bëgg ngeen noppalu xam ne aadama mooy waali waali mooy aadama man lun ma def seen yoon newu ci Omaro bu ma dugalee ku man la intéressé waali bu ma toroxalee man la intéressé waali bu ma faalewul man la intéressé waali bu fekkee eh, eh, jege na maag jegewu ko jege na ko man la intéressé man maa bëgg waali te chaque jour da ngeen may gis ci waali chaque jour fu waali dem may dem damay dagg bee dem éviter ñàkk invitation Adama day dem nan wax ne waali dafa war a ñëw fii rek mu def def waaram ak ay moyam engagé wu te bu yeggee dina dem ci waali dina gis waali dina ànd ak Wally dina am bracelet VIP dina nekk ci concert bi te dina jege Wally te dina filmer dugal vidéo yi maa bëgg Wally bàyyi leen maag waali seen yoon ne wuti Adamo mooy Wally Wally mooy Adamo point lii lu ci way man lii de xaw ma lu ci wa boo ci waxee ba dee moom da nga yàq sa salif maanam Adamo moo mun taw bàyyi Wally kooku kenn mënu ci dara wasalaam point